ci ndigalu sëriñ Muntaxa Mbàkke xalif général de Mouride ak ndigalu sëriñ Moustapha moom Cheikh Massamba ni ñu baaxoo def bis bii nga xam ne mooy ñëw di bisu ma samba di yemoo ak ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci Chaabaan di yemoo fukki fan ci avril ñu ñu daa ca fàttaliku Cheikh Massamba di ko ca ñaanal di ca di di ca déglu ndigal yamu daa joxe waaye di ca wattandiku tere yam daa bàyyi yam daa tere ci loolu sëriñ Moustapha daf leen a wax ne mu ngi nuyu taalibe yépp fu ñu fi mën a nekk ci biir réew mi wala ci bitim réew mu di leen yëgal na bés boobu incha allahu rend nañ ko def nañ ko daa defee ca fii ci tubaa muy béréb boo xam ne ndigalu sëriñ bi dafa tax nañ ko daa yóbboo ca daaru yi mu ñu bàyyi ko ba lii nekk ci biir réew mi jóge fi ndax lépp wattandiku la te wattandiku dafa bokk ci li mënul ñàkk wattandiku moo gën faju te sëriñ bi am na ci yitte lool sëriñ ma Massambat am na ci yitte lool ak sëriñ Mamoor ak njaboot gi yëpp lay seen yitte mooy lépp lu sëriñ bi digle ñu jëfee ko nam ko diglee lépp lu mu tere ñu bàyyeeko nam ko teree loolu mooy taxawaayu soriñ Moustapha mii ca ba muy dox ba léegi mësul def leneen lu safaanoo ak loolu bëgg-bëggam bépp mooy luy ndigal taalib yëpp maasa ci lu dikk tere taalib yëpp maasa ci bàyyi ko kon ndegam sëriñ bi joxe na ndigal ñu defe bis bi ci tuubaa kenn ku nekk ca kër ga nga nekk nga toog fa jàng fa alxuraan jàng fa xasida loo fa mën a def nga def ko fa ci ay teraanga waaye bu kenn dem fekki kenn bu kenn jógee fii dem fenn ku ci nekk sa kër na ko fa defee dana doon nag ndigal ci at taalibe bu nekk dana doon ndigal ci taalibe bu nekk mu jëfe lii nga xam ne moom lañ ko digal ndax wóor nañu ne kenn ku nekk lay lay yéeneem ak yitteem mooy jëfe ndigalu sëriñ bi ni nga xamee ne buñ leen woowoon lu mu sori sori ngeen bàyyi lu ngeen jàpp ñëw fekk si jataay boobee na ngeen ko defee noonu bu bis ba ñëwee moo xam ku nekk ci biir réew mi ci gox yim gox yëpp ba mu jeex ci ci Njàmbur ci Saalum ci Bawal ak ci ak fépp kenn ku ne dem ci këram jàng fa alxuraan jàng fa xasiida ñaan fa yàlla ya sunu borom yokk leeri Cheikh Massamba Mbacké ca foofee mu nekk ca bar sam ak mbooleem ñam fa ñam fa nekkal ñëpp ci loolu nag sëriñ bi mu ngi leen di xamal ne béréb boobee ñu ko daa defee muy Daaru Karim ba tey béréb la rekk bu fa nekk fii ak ndigal li jeexul moom su ko fa mën a defee waaye nag mu ngi sàkku ci képp koo xam ne jox nañ la fa béréb muy kër nga sañc kër googee def fa la nga man di yokk ba ba muy àgg waaye kuñ jox kër luy bëgg a mat fukki at ak nangam defoo fa dara na la wóor ne bu ñu demee ba gis ñu ku ku ko gën a yittewoo dañ ko koy jox kon nag ndigal li bu ñëwee na ko ñëpp jafe ku fa am kër wala nga am pàkk boo fa am lu mën a doon nang ca def la nga man lépp ndax loolu mooy ndigalu sëriñ bi te mooy la mu bëgg ca béréb ba itam ndax euh, béréb ba dafay boo xam ne ci ndigalu sëriñ Touba la ko ma sàmba amee woon ci ndigalu sëriñ Touba loole ba mu ko ci amee noonee la ko fonke woon yittewoo ko am ca taxawaay bu mel noonu boo gisee ñu dem ba léegi ñuy wax nañ sanc ak nañ def nangam ñàkk gum mën a ñàkk a tàggalikoo ak sëriñ tuubaa moo taxoon ndax bi mu leen yabalee ne leen na ngeen sanc fii muy sëñ Modou Moustapha sëñ Fallou ak moom daf ne leen kenn ku ne na wuti fu muy liggéeyee bu ngeen demee ba eh, lu mat ay juróomi kilomètre kenn ku ne nafa dal te fas fa yéenee liggéey ndax nit ku bëgg a tedd ku nekk da ngay nangoo liggéey ku bëgg am nga rëmul suñu borom da ngay nangoo jaamu yàlla te la ñoom ñëpp sanc béréb yooyu sëñ Massamba itam sanc ko waaye ñàkk gi mu mën a ñàkk a tàqalikoo ak sëriñ Touba nag fu mu nekk mu daal di koy woo di ko di ko jox ay ndigal loola moo tax nam fa waroon nekke mënu ko faa nekke waaye mu bàyyi fi njabootam gu mu wóolu muy sëñ daam baleloo doonoon jawrinam ak sëñ Modou Faty Khary gannaaw bi te njëkk na ko jox sax sëñ Modou May sëñ Modou May nekkoon fa at biir doo nga dem keere sëñ Modou Faty Khary doog faa nekk waaye teewul nag bëgg-bëggu njaboot gi bëgg-bëggu sëriñ bi bëgg-bëgg ki fi nekkal Seex sàmba mooy ñu def bërëb boo xam ne bi ñëpp danañ fa ñëw am fa kër te toppatoo ko te def ko nam war a mel loolu mooy ndigal li nga xam ne moom la joxe nañ fas yéenee jëfe loolu te bañ caa soppi dara bis bii ñuy wax itam nag dara taxul ñu di ko def lu dul du gën a gën a gën a fàttaliku Cheikh Massamba gën koo ñaanal gën ko gën gën a yàlla suñ borom dogal yokk ay leeram ca barsàq fa mu nekk loolu loolu mooy tax ñu di ko def loolu nag dara du ca jiitu jàng alquran dara du ca jiitu jàng xasida dara du ca ji ay istixfaar yu bari ak jéggul suñ borom tabaraka wa taala loolu buñ ko defee dana mel ci misaane li ñu bëgg lépp mën nañ danañ ko ci am incha allah lii mooy ndigalu sëriñ Moustapha mooy ndigalu sëriñ Mamor te loolu lañ fas yéene di ko jëfe ba faw bis ba nag mooy doon ni ma ko waxee ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci mois de Chaban di yemoo ak fukki fan ci mois d'avril di gaawu koo xam ne kii bis boobu ñëw na boo xëyee na nga xëy ci loolu ba jant so bu la neexee nag nga nga nga ñaan loolu mooy li nga xam ne moom la sëriñ bi digle ci loolu lan fas yéenee nekk te duñ ca soppi dara incha allahu yàlla nañu yàlla dimbale ba ñu mën koo jëfee ni mu ko bëggee te mën a bàyyi ay tereem ni mu ko teree yàlla yàlla dimbale ban mën a sax ci loolu te te mu te mu te mu dimbale nu ban mën a mooy seeni tere yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def wa ma zalika alallaahi bi aziz wa salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu